بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soppay imam malik ñoo nga am mbégte kontaante di ñëwaat ak yéen ci jaar-jaaru imam malik rahmatullahi alayhi imam bu mag boobu nga xamante ni bi athna alayhi nnaas wal alaamu wa kulluhum qaalu huwa al imaamu jataay ba la paase nag waxtaanoon nañ ci wàccuwaay bi nga xamante ni bi suñ borom yàlla mayoon na ko nit ñi wàcce ko ko encore waxtaan ca jaamu yàlla ga waxtaan ca lenn ci waxam yi am njëriñ yooyu nga xamante ni bii jàlloon na ca jataay bële tey ñu ñëwaat ci beneen jataay ci siiratu imam malik rahmatullahi alayhi muy nekk ay jataay yoo xam ne moo jiitu chara bi ñuy chara mopp imam malik te jeexintal ba ah tey nag jataay bi daan ci jàng ñi nga xamante ni bii ñoo jël xam-xam ñoo jàng ci imam malik rahmatullahi alayhi ñetti njëkk moo di ay sëriñam ak ay moroomam ñoo xam ne ñoo ko mag ak ñoo xam ni ak maasam lañ ñetteelu point ñaareel point bi ñuy jël mooy groupe bi nga xamante ni bii mooy groupe bu njëkk ci imam malik ay ndongaam kuréel bu njëkk bi génération bu njëkk bi daañ ci jël ñaar nit tey nga xamante ni bii ñooñu niñ leen di xàmmee mooy ñi nga xamante ni bii ñor nañ ci xam-xam nekk ci ay kàngam te imam malik moo ngi dund ñetteel ba daañu gis kenn ci ñooñu te moo di imaamu shafii nga xamante ni bii kenn la ci borom ñeenti ngéer yi kon tey daañu gis kenn ci borom ñeenti ngéer yi mu nekk ndongol ka ca des bu ñëwee nag ci commencement ñi nga xamante ni bi ñooy asxaabu malik imam malik ak ay gaayam alqaadi iyaad nee na bunta ngi ni lim ci jàngale moo di mashahiru ruwaati an malik ñi gën a siiw ci ñi jël ci imam malik ndax nee na kat moom alqaadi iyaad borom tartibul madarik nee na mas naa dajale téere boo xam ne lam ca dajale mooy ñi riwaaya jële ci imam malik ay ndonga am nee na mu am ca junni ak ñetti téeméer yu topp nee na daal imam malik ñi nga xamante ni bii jëlee nañ ci moom xam-xam nee na ëpp nañ junni ak ñetti téeméer ah yaakaar naa ko xool lim boobu day da nga yem yàlla ci ni nga xamante ni bii nit ñi bëgg woon ko bëgg woon nañ ko imam malik waaye naw xam-xamam waaye bëgg bokk ci ñi jël ci moom tey jii nag buñ demee di séddale ñooñu daañu fa fekk ñu baree bare ñoo xam ni mën ñoo ñëw sax ci genn wàllaat ga maanaam bu doon téeméer la ñun benn sax duñ ko ca am dañ ciy toppati rek su ko defee lu jëm ci ay sëriñam moom dañ ko sax jéggi ndax buñ demee ca téere ba sëriñ buñ yegg rek daañu wax biographie am bu dee ndongo yi tamit daañ ci mus daañ ci jël tuuti commencé ci sëriñam si nga xamante ni bii dañoo jël ci moom xam-xam loolu mën nañ ci lim ñu bari ka ca njëkk moo di muhammad ibn muslim ibn ubaydillah zuhri yi imaamu zuhri nga xamante ni bii imaam bu mag la nekk taabii yi taabii nag mooy koo xam ni dafa gis saxaaba yi waaye tamit jël ci ñoom xam-xam loolu la loolu lañ gën bari lu ñuy wax koo xam ni mooy di taabii yi kon imaamu zuhri taabii la waaye tamit jël na ci imaam malik rahmatullahi alayhima ku ñuy wax ayuba saxtiyaani moom tamit jël na ci imam malik ku ñuy wax rabiatu ibn abi abdirahman ni ko wax rabiatu ray sëriñ la ci imam malik waaye jël na ci moom muhammad ibn ishaqa sahibul magazi nee nañ jël na ci imam malik jàng na ci moom as sufyaanaan ñaar sufyaan yi sufyaan ibn uyayna ak sufyaan athawri ñaar ñëpp jële nañ ci imam malik rahmatullahi alayhim kadalik allayth ibnu saad nga xamante ni bii ci waa misra la bokkoon moom tamit nee nañ jël na ci imam malik waaye abu yusuf alqaadi saaxibu abi xanifa kooku tamit bokk na ci ñi jël ci imam malik moom abu yusuf ismail bin ibrahim bin ulaya ak waqia ibn al jarah waqia ibn al jarah cheikhu ahmad ñii ñëpp jël nañ ci imam malik rahmatullahi alayhim ajmain kon buñ ñëwee ci groupe bu njëkk bi ñi nga xamante ni bii imam malik a ngi dund ñoom ñuy dund ñu jël ci imam malik waaye nekk ay borom xam-xam yoo xam ni kenn nattable wut seen xam-xam nag loola daan ca fekk abdullahi ibnul mubarak nga xamante ni bii moom ak imam malik daje nañ ci ay sëriñ sax nag jëlandoo fa ku mel ni hisham ibn urwa bokk na ci sëriñu imam malik waaye bokk na ci sëriñ ibnul mubarak abdullah ibnul mubarak tamit bokk na ci ay sëriñam xumaydun ak tawil xumayd bi nga xamante ni bii mooy jël ci anas ibn malik rahmatullahi alayhim ah ashiraadi nee na kii di abdullah ibn mubarak day tafaqaha bi malik wa thawri nee na moom jàng na fiq ci imam malik ak imam sufyan al thawri waaye nee na avant loolu dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni bii dañ doon jël ci abu hanifa tënku ci ngéeram waaye ba mu demee ba gis imam malik ak sufyan al thawri ci la bàyyi ngéerum abu hanifa dal di tënku ci fiq malik ak sufyan ak ñi mel ni ñoom abu isxaq alfazari yi nee na ibnul mubarak day mooy imaamul muslimin kon ibnul mubarak nekkul ku ndaw abu zurat arrazi yi nee na ibnul mubarak day dajale na juróom benn jikko wala boog lu mu néew néew juróom nee na lii di fiq ibnul mubarak am na ko lool lii di muru'a te mooy ak nite nee na ibnul mubarak am na ko lool shajaa nekk jàmbaar ne ibnul mubarak nekkoon na ko nee na waaye tamit saxaa te moo di tabe wa asyaa ak yeneen mbir yu bare bare bari moom ci imaam ibnu mubarak moo tax ku jàng histoire am dañ ca amee ay règles yu am solo yoo ci mën a génnee ibnu mubarak rahimahullahu taala nee na talabtu l adaba thalathina aaman mu ni man de sàkku naa lii di adab te moo di ay teggin ab yar nee na yar ak teggin sàkku naa ko ñaata at benn wala ñaar wala juróom déedéet moom yooyu yëpp nee na passé na ko fukki at déedéet nee na fanweeri at la def ci lii di sàkku ab yar sàkkuy teggin nee na wa talabtu la ilma ishrina sana nee na ma sàkku xam-xam ñaar fukki at kon dundam gi yëpp diggante xam-xam ak teggin ñoo ko jeexal daanaka juróom fukki at a ngoog lépp nee na ma def ko ci yar ku teggin ak sàkku xam-xam waaye tamit ibnu mubarak bokk na ci ñi nga xamante ni bi dañoo séddale seen dund lenn li at mu jot ak la ñuy def léeg-léeg ñu dem aji yi muy at bu at ma del see ñu dem guerre yi ndax moom jamonoom islam daf doon guerre xam nga ñoom dañoo jege jamonoy saxaaba yi booba guerre tegagul tegagul ay ngànnaayam guerre ngi doon am waaye su ma saan di aji day dem ba ci dëkk yi nit wool leen ma borom xam-xam yi ndax xam nañ ñoom li ci gën a bari duñ nekk boroomi alal ndax àdduna yi teelu leen lool mu ne woon leen ko boroom xam-xam yeeg ñu ñàkk ñi bu ñëwee mu ne ku ci bëgg a aji kay ànd ak man lépp li sa dépasse maa koy yor bu tamit geer jotee noonu lay def ni ku bëgg a génn geer yi ñëwal ànd ak man lépp li sa dépasse maa koy yor ba kere ngay delsi te ku ne xam na ni geer nag dafa laaj alal ju bari ibnul xuseyn nee na kii da abdullah ibnul mubarak day mas naa yónnee ci abubakar ibne abi ayash bi arbaina alfi dirham ah ñeen fukki junniy dirham bu doon suñ jamono ji nga ni ibnul mubarak day lu mu néew néew yónnee na abubakar mooma ay millions yu bari su dul ay milliards lu mu ko wax sudda biha xallat al qawmi indak ñu ñàkk ci ñi nga dëkkal nga xam leen demal nga jox leen bañ oomal tey borom alal borom xam-xam ibnul mubarak loolu la woon borom alal borom xam-xam moo tax xam na fu muy def alalam ndax da ko doon jëndee kër di teg jënd oto yi teg jëndi avion déedéet nee na nañ jël millions yeeg milliards yi jox ko jaami yàlla yi ñi ñàkk ñi yónnee ko kooku mooy ibnul mubarak kañ la génn àdduna nag ñu ni génn àdduna 181 kon mook imam malik daanaka di dox seen diggante matul sax juróomi at matul juróomi at kooku mooy abdullahi ibnul mubarak rahmatullahi alayhi waaye tamit bokk na ci ndongay imam malik ku ñu wax abdul malik ibn al majishun kooku xam naa duñ mën a ñëw ci biographie am kadalika ñu bari ñoo xam ne romb nañ leen waaye ka ñuy jeexale jotaay tey moo di muhammad bin idris al shafii imaamu shafii imaamu dunia imaam bu mag nga xamante ni bii bu ñu waxee ngeeru imaam ngeeru Shafii moo ngi dellu si ci Muhammad ibn Idrisa mi mooy kii nga xamante ni bii mooy borom ngeer mi imaamu Shafii ñu ni moo ngi juddoo ci Gaza mooy fii Palestine nekk léegi ñii ni moo ngi juddoo bil Yaman Yaman la juddoo ban at la juddu ban at la gane àdduna mooy cent cinquante ci gàddaay gi wa xumila ila makka ñu dal di koy jël nag yóbbu ko makka moom imaamu Shafii foofa la dund nag nekk fa waaye tamit doon na dem fii di Irak ak yeneen dëkk ak sax Égypte dem na mu dëkk fa lu yàgg imaamu Shafii nee na ma ngay nett li ba nga xamante ni bii doon na jàngi ba mu commencé dugg ci mbirum njàng nee na la ma jëkk a def mooy dem ci géer gu ñu wax Hudayl nee na ma dem fa ñoom pour jàng arab donte arab la de ci biir arab yi lañ ko ci biir arab yi tamit la juddoo waaye nee na dem na ci giir gu ñu wax Hudayl nee na man damay jàngi arab pour gën a dégg arab nee na loola ñaata at laa ca def fukki at ak juróom-ñaar cay suñ jamono yi tey ku génn 4 ans wala 5 ans wala 6 ans nit ñi ne moo xanaa njàngam mi du jeex imaamu Shafii de nee na ba mu génnee di dem la jàngi arab kese booloo ci sax yeneen matières yi de waaye arab kese la bëgg a dégg ak nu ñuy waxee wax ju wax ju nosewu nee na def naa ci fukki at ak juróom-ñaar nee na ba ma jël see màkk nag ma commencé nekk ab woykat bu mag nekk ku mën a wax ci ayaamul arab mooy arab yu njëkk yi seen bis ya bis yeen ñi bàkkoo nee na yooye ma xam ca lu bari nee na bu nekkee màkk rek di nett li lool nit ñi wër ko kontaan lool ci ni muy waxeek làmmañu set wi nee na benn waay romb ma mina zubayri yiin koo xam ne ci géeru zubayr la bokk nee na mun ma yow abu abdillah man de nii ma la gisee nga am fasaaxa lool làmmañu set macha allah xel mi ñëw ah man de yéemu naa nan ngay def ba taqaloog boroom xam-xami islaam yi ba sa xel mu ñëw mii nga mën cee jariñ lislaam mu ne loolu de moom yëm yëm na ko de nan lay fexee ba loolu am imaamu Shafii nee na ah man ko waxal sa xalaat mun ko xanaa nga dem ci ku ñuy wax Malik ibn Anas Malik sayyidul muslimin nee na ko Malik day mooy sangu jullit ñépp jamono ji mooy ki fi ëpp xam-xam gis naa day nga dem ca moom toog fa moom sa xel mu ñëw mi yegg sa mën a mokkal gii mën a jariñ lislaam imaamu Shafii nee na loola nekk sama xel mi ma di ko tourné di ca xalaat ba ba mu yàgg ma jël téereem bii ñuy wax almuwatta téere imaam Malik boobu nee na ma sëgg ca ne dama koy mokkal ñaata weer laa ca def wala ñaata at bu doon suñ jamono ji nee na moom du weer du at waaye ci juróom-ñeenti guddi la ko mokkal kooku mooy imaamu Shafii ca mokkal gu rëy ga tey nee na muwatta imaam Malik yépp daal ci juróom-ñeenti fan ci laa ko mokkal moo tax ba mu jógee ca loola mu ñëw ci imaam Malik daal di tax koog moom bu ñu waxee mu ni Malik ibnu Anas muallimi imaam Malik daal mooy sama sëriñ de ci beneen riwaaya moo mu ni mooy ustaad yi kon ñi nga xamante ni bii dañuy xebaat ustaad ndekete imaamu Shafii moom lu rëy la ko def ndax nee na imaam Malik mooy ustaadam waaw ustaad kon du lu woon du lu ndaw même boo demee ci Abubakar al Bayhaqi bu demee ci sëriñ sam sëriñ sam sëriñam si yi gën a mag da leen di wooy ustaad comme ibnu Forak kon nga xam ni ustaad bu njëkk lam doon tekki lu rëy la jamono dem rek ba mujj nekk lu oyof waaye imaamu Shafii moom nee na imaam Malik ustaad yi wa minhu taallamna al ilma nee na ci imaam Malik yi lañ jàngee xam-xam wa ida dukira al ulamaau fa malikun an najmu nee na saa yiñ tuddee borom xam-xam yi nee na Malik mooy biddiw ba waaw mooy biddiw borom xam-xam yépp bu ñëpp nekkee ci suuf moom ma ngi ca kaw kon imaam Malik foofu la ko imaamu Shafii tegoon mu rëy lool ci bëtam ba yeggoon na ci di wax ne innama ana gulaamun min gilmaani Malik mu ni man day as ngone laa rek ci goney Malik yi ab xale laa ci xaley Malik yi ab ndongo laa ci ndongoy Malik wax na ci beneen riwaaya mu ni ja'altu malikan xujjatan fi ma bayni wa bayna Allah nee na kii di imaam Malik day jël naa ko mu nekk sama lay sama digganteeg sama borom imaam Malik mu ne doy na ma sëkk aw lay sama digganteeg sama borom kon loolu yaakaar naa kooku dégg ci imaamu Shafii dootoo amat ci sàkka ci ni imaam Malik moom wax dëgg yàlla kàngam la moo xam ni ku jël ci moom xam-xam jëfee la nga xamante ni ba moom am nga jàng ci moom mu leer naññ kenn amatul lum lay wax kenn amul lum lay yedde daana wax tamit naan hada qawlu ustaadi yi imaam Shafii buñ ko masaan laaj ci masala lu gën a bari da leen di wax ca masala ba xalaatam buñ paree mu ni leen lii de mooy wax sama ustaad kuy ustaadam imaam Maalik la ci jublu waaye imaam Shafii tamit noonu mu wàcceewoon boppam ci kanam imaam Maalik fonk ko naw ko réyal ko lool ay ndongoom noonu lañ ko moom tamit fonke naw ko réyal ko kon xam-xam noonu la baaxoo ku nekk jox ko la mu yellool soo bëggee ñu jox la li nga yellool imaam ahmad nee na alshafii daal kaana ka shamsi li dunya wal aafiyati lin naas ñu koy laaj imaam shafii boo ko doon melal noo koy melale mu ni moo ngi mel ni jant ci àdduna bi ndax bu jant génnoon àdduna dana dox mu ni waaye tamit moo ngi mel ni wér-gi-yaram ci doomu aadama yi ndax ko amul wér-gi-yaram da nga mën a def dara moo tax mu ni fandur hal li haadayni min ibadin imaamu ahmad nee na xoolal ñaar yi ndax dara mën na leen changer dara mën na leen wekki dara mën na jël seen place mukk imaamu shafii daana wax tamit kii di imaam ahmad ak abdurahman ibni mahdi ni leen ama antum fa aalaw bil xadiisi min ni yéen de yéen a ma gën a xam hadis de hadis yéen a ma ko gën a jekku de bu hadis bi wéree ci yéen nee na xamal leen ma ko ba ma jël ko def ko sama madhab jël ko def ko sama yoon bi may jaamoo yàlla jël ko dugal ko ci samay téere kon kooku mooy imaamu Shafii teel a xam lool lii di taxassus nit ku nekk ak matière ba ngay suivre waaw diine mënta ñàkk loolu ku xam lépp loolu kenn yàlla yàlla defalu ko kenn wa ma utitu min ilmi illa qalila kon il faut ñu ni kii nangam la jàng spécial spécialisé wu ci dara loolu imaamu Shafii junjoon na ko de noonu na Ahmad ak Ibnu Mahdi addis ñoomati man bu ñu xamee ne addis bi wér na daal nañ ma ko wax ma jàpp ci addis ba loolu ñëw na ci ñëw na ci ay téeram lu bari sax kon mënta ñàkk nit ki mu yem ci li mu xam lam xamut mu laaj ko ñoo ko xam ako ñu ko soxla suñ penc mi kon gis nga boroom xam-xam yi seen jaar jaar lii lay jariñ nga xam fooy teg sa tànk xam fi nga war a yem xam sa bopp te kenn du la ko wax xanaa la ngay jàng ca téere ya moo tax ku yem ci li téere yi di wax jàng ko gëm ko pratiquer ko di nga ne ci yoonu leer nañ waaye ko ko fa bàyyi topp nit ñi di la jayeka di la yëkkati di la funkil nga jàpp ni egg nga fu ne fekk eggoo fenn ba muy tuut xam-xam doo ko barile wala boo ko barile doo ko jëriñoo yàlla na suñu borom yàlla boole sàmmal suñu bopp ñun ñëpp imaamu Shafii nag bari na ay wax yoo xam ni yu am solo la yu mu wax romb nañ ci lu bëri waaye jotaay du ko mën a jotaay bi du ko àttan kon fi ñuy jeexale rek moo di wax ni génn àdduna ca misra kon imaamu Shafii ndekete yow waa Màkka la waaye génnewul àdduna sax luy lu jëm ci côté Màkka waaye ma ngi génn àdduna ca Afrique foofu di Égypte fa la génn àdduna bisu alxamis ñii ni bisu àjjuma ci weeru rajab nga xamante ni bii boobu rajab moo ngi bëgg a jeex nee nañ ci la génn àdduna atum ñaari téeméer ak ñeent ki nga xamante ni bii moo nekkoon njiitul Misra njiitu Égypte moo ko jullee moom imaamu Shafii kon xam naa dañuy taxaw foofu incha allah ba jotaay bi di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullah